وترهيب رجل الله والمواعظ أجواره وغير ذلك أقول له لفكل له لبهم حرام له حرام له من أكبر الكبائر بوكت بكاري جنا مج وأقبح القبائح أجيجنا بون بإجماع المسلمين أشد فوق جرني الذين يأخذ من يوم تدرن كون درن ركنا تربيم فيهم في الإجماع أشد فوق خلافا وتجل الكرامية نيان الكرة الكرامية أتاي فتكرر المبتدئ أتقوى خمدني فنت fi zahmim seen njort albaatili gaa ji neen annoona li am baam yajus dana dagan watul xadis yi fent xadis fi tarxib bi ci xemam loo wa tarxib ak ragal loo waaye mazhab boobu borom xam-xam yi ànduñ ci ndax yonuntu dafa aaye moom nar rawatina naral ko mhm. feneen yonent bi sallallahu alayhi wa moo xam li nga fenalee yonent bi atte mën na cee juddoo wala mën mënu cee juddoo nit ki loo xam ne daf naan ku jàngal xuraan am tiyaaba nangam xam nga loolu benn atte juddoo wut wala boog ku dëngee sa ñaari waajur bàkkaar sàngam dal la wala mbugal mbugal sàngam dal la te yonent waxu ko xam nga loolu atte juddoo wut ci waaye loolu cee fenal yonent bi sallallahu alayhi wa boo xam ne dafay waar nit ñi pour ñu góor góorgóorlu wala daf leen ragal loolu bon wala mu leen yaakaar loolu gën wala mu leen sawarloo ci def lu baax lool it kenn waru cee naral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa xaraam bokk ci bàkkaar yi gën a mag ak yi gën a ñaaw lu tax parce que jullit ñi nga xam ne nii rokk reconnaître nañ leen ñoom ñëpp dëppoo nañ ci dafa am ñoo xam ne ñoom kenn dégluwul leen ndax mbooloo buñ dëppoo it foofu ñu am ñu beddeeku ci làng ga loolu mënu ñàkk waaye borom xam-xam yi ak ñi ragal yàlla teg seen tànk ci sunna yonent ci moom dëppoo nañ ci lii karaame yi nag kuréel lañ koo xam ne fentikat lañ ñoom dañoo jàpp ne nit mën naa sos xadis ngir xemam loo nit ñi lu leen gën a góorgóorloo ci jaamu yàlla hmm. wala xadis boo xam ne daf leen ragal loo moo yàlla wa taaba moom topp na leen alaasa ci lii kasiroon ñu bëri minel jaxalati ci way réer yi alladina ñi xam ne yeen suboon la ñu askane am seen bopp ila zuhdi ci dëdd aw yeen sa boom wara mu leen askane jaxalatun way réer mislahum comme ñoom dégg hmm. ñu bëri ci way réer yi yi nga xam ne askane nañ seen bopp ci dëddu àdduna ne ñoom dañoo dëddu àdduna jàpp nañ ne ñoom it man ngaa fente hadis boo xam ne fan la yonantu waxu ko sax ne yonantoo ko wax ngir nit ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla wala ñi gën a ragal moo yàlla waaye loolu wérul aw yenn sa wum wala mu leen askane jaxalatun way réer misloom comme ñoom maanaam ñoom ñoo jàpp ne ñoom dañoo dëddu àdduna moom noonu la ko waxee waaye dëdduñu àdduna buñ dëddu àdduna duñ fenal yonent bi wala boog ñu réer ni ñoom naan nañ diw dafa dëddu àdduna fekk dëddu àdduna muy fen rek xam nga ab fen moom ci wax yonent moom boo ubbee bunt boobu rek mooy man ngaa sànq diine parce que ñii dañoo wuteeg ijma moo tax te ku wuteeg ijma kenn du faari sa wax mhm. wa shubatu wa shubhatu zaamim defek seen ak njortu albatilu gi aji neen andoon li am ba am jaa dikk na fi riwaayati ci solooga man kasaba ku nar aliya ci man mutaamilan di aji tey luy di ngir mu réeral bii ci moom faleeta boo ana préparé maqaadu toog waaye meen naari safara ñoom lëntër boobu la ñu indi hmm. subha zamihim mooy lëntër gañ indi seen woote caaxaan googu mooy ne yonentu dafa ne bokk na ci riwaaya hadis yi yonentu nee na kuma fenal te yaa ko tey ngir réeral nit ñi préparer sa bopp safara ñoom lañ ci déggee ñoom ku ko fenal te tey ko waaye jubloo si réeral nit ñi ngir jubal nit ñi nga ci jublu ngir ñu jaamu ji yàlla nee na yow yu taxaw yoroon ci wax وزعم موت بعض من ينم ان هذا نلي فن غو خم داي تخ ني غنا غور غول كذب له فن لا جابر يونتي بي على يالك مو وصلات قول وسلام مك لا كذب علي واي نيكو سنال كو لي دا فن بور جابل كو واي فنو بور ياقل نو وين وعد الذي لي خم ان تحلوا ساتش نانكو تخول نانكو وفعلوا ني رفكو وسدلوا ني تكترو بي تي موم غايه الجهاله موي دويتلو ونهاية الغفلة ما يدوتر ويسجل وعدل الدلائل ما يتكتل بجنور على إمشي صري جين سوري من معرفة الشيء إمشي انتقام درا من قواعد الشريعة بونك شريعي لي ما يتكتل بجنور نني قم درا شريعي وقد جمعوا دجل لن في سن وخجو جمرا من الأغالي تتعي جخص اللائق يأجي يلو بحقولهم إمشي قل السخيفة يأجي صوفي وأزهانهم أكسني آه، دينغا خل البعيد يا يسري الفاصل يا يق فخالف نيوتك قول لا يوخي العزنون وجرة ماغنا دجل لن دار اين جخص يو قمني مو هل لن يوم دمد دبوك سين خل يسري يو يق يو نكون اكنا نسا خل طول نور رنگ اي وخي نيوم نسا خل نون لطول نفسوفي نيوت اي الله دنگا جي الله وحنا ورا تقفو بل خنتو ما لا ليس نكو لك دير بيت مو من خم خم إن السماء نكدق والبصرة قسم والفؤاد أقل كل ذا كل أولئك يبكى على نك نج مسؤول عن دينه لا جانو تمام صديق جيك سب جس جيك لينا فصل خل بيقول بيار ذا لو خلاج كون بول بول دينغا دي توب لو خم نخموك أم لو أمر خم خم بجدوك نعم نقلي أمين شخم خم بفر نيم شيء دوك وخالفوا نيوتك سريع هذه الأحاديث حديث بولير بي المتواتر بين خمني dafa ñëw ci mbooloog mbooloo wala xadis a sariha ak xadis yu leeri al mashhura yu siiw fi azami shahadati zuur yuy màggal seede ay fen seede goo xam ne ay fen la xadis yu bari ñëw na ci aaye ko ba pare ñoom ñu wuteeg xadis yooyu wuteeg laaya ji bëgg sukkandiku ci ay fen ne dañuy dëgëral lislaam waxuñ dëgg wa xaalafoo ñu wuteeg ijma ahlil xalli dëppoog ñooñ fecc wala àqdi ak ñooñ fas dégg ñi nga xam ne nii dañ ñooy feccee ko fas ci wàllu xam-xam mhm. hadis wute ak lañ dëppoo dem def lu leen neex ñoom waxee risaale ak dul loolu min ad-dalaa'il al-qat'iyaati ci tegtal yu dogu yi fi tahriimil kazi bi ci xaraamal fen ala ahadi naas ci benn benn nit ñi fa kayfa naka bi man xawlu ci koo xam ne waxam shar'un sharia la wa kalaamu waxam waxyun waxyu la aay yu bëri ñëw nañ di araamal fenal nit rek fenal nit nii rek حرامنا لو خم نك فين اليوم تي الله محمد صلى الله عليه وسلم تيون تسلم انت دان سخلو فين غير غير غنا دغرل لي مو اني نل واذا نظر نم قولنا واذا نظر بن قول في قول سن وقت وجد لن فك كذبا فن الله تعالى تعالى كبر بو نيوم بولن قول زفرن لن يالا mm-hmm ndax xaala woon na laa yàlla taala kawe na moo waxal boobu ne wamaa yéen tuqud tudd moom yonent bi anil hawaa ci bànneex bakkanam in huwa déet moom illaa waxyi lu may wax yi xam ne yu waxaa waxi nañ ko yonent lu mu wax rek wax yu la soo ne moo wax naa nga mooy ne yàlla wax na ko te yàlla waxut ko yonent waxu ko kon loolu ñaari fen la wa min ajabi asiyaa bokk na ci mbir yu gën a yéeme xawlum seen waxaadaa lii kasibun fen la lawu ñeel yonent dañ koy dimbale waxaadaa lii la minum ci ñoom bi lisaani arab وختام الشريعة شرعي أني شريعة وخير ديو خمو العرب خمو لي شريعة دي جبل سي وخم فين كل زالي نك لو لب عندهم فنيوم كذبون عليه فين يونت بلا ندخ يونت لي انت دو انا لوكس لوش يوكو ياقلكو فين لا وخين حديث يدي وخش فين يونت بت ورنا تخ كو نك تيتي ولا حديث باسكو وين لي يونتو كو وخ تيو دو مجتهد xam nga yonatu foo ne ku ijtihaad boo juumee am nga benn tiyaab waaye ku yëggu ci daraja yi ijtihaad yow waxuñ la foofu yow doo mujtahid ndax andi sa xelam bopp ne hadis bi wér na te borom xam-xam yi ne wérut feneen nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ndee sa xelam bopp ne hadis bi wérut yonent waxu ko te fekk moo ko wax feneen nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ku bokkut ci mujtahiduna yi na tee ci wàllu xadis balaa muy jaay diine waxaadaali jaxlu réer la minu ci ñoom bi lisaani arab ci langue arab wa xitaabi sharia ak ak wax ak ak ni sharia di waxee ndax loolu la fenal yonent bi la wa amal xadis la ci xadis bi nga xam ne taxallaqu aju nañ bii ci moom fa ajaaba tontu na alulamaa borom xam-xam anu ci moom bi ajubatin ci ay tontu axsanaha ba ci gën a rafet wa axsaraha ba ci gën a gàtt an na qawloo naka waxam lii di la ngir mu réer la annaasa nit ñi ziyaadatun يوكلا باتر في بوخ من نين لا اتفق الدبون الحفاظ وبرم خم خم حديث يب على ابتال يا تياقو وانا انك مم لا تعرف دينك خم سيهات المبير بحال تبن مبير خم حديث بو نيوي بنين حديث نيو يوكو تي دارا كون دا فا لير الحديث بو جيك su fekkee ne lam ci yokk dafa dëppoog li borom xam-xam yi jàpp mën nga see jàpp waaye xadis bi yokk ga dafa wuuteeg mboolem borom xam-xam yi liñ liñ jàpp dañuy xam ne yokk gi ak nar la wérul kon luy di la naa si amut ca ndax même bu dul réeral nit ñi it day kii euh, nit mën na ci euh, fenal yonent bi waru ko def rek même bu dul réeral nit ñi wala boo nga ne laa ma fuuma lahu luy di la naa luy di la bii ñëwut pour tekki ne boo ko boo ci réerlu nit ñi dagan na hmm. parce que alxuraan wax dara sax loo xam ne nii doo ci déggee safaan nga wax ji laa mafhuum lahu maanaam wax yoo xam ne mafhuum asaani ñaareel ba jawaabu abi jaafar tontu abu jaafar ak taxaawi ne annaha naka loolu law saxaat bu wéroon moom wax na ko sax la kaan li taakid dafay ñëw ngir feddali ka xawlu laa ni ko wax yàlla fa mu kan moo dàq tooñ man iftara ci ku fent laa ci yàlla kasiban nar liy di la naas ngir réeral nit ñi lii dafay war ne ku fenal yàlla ngir ngir jubal nit ñi baax na lii dafa ñëw pour feddali rek wane ne fen moom réer rek moo ci mën a juddoo waaye ñëwu ci ne fen goo xam ne dafay jubal nit ñi baax na parce que fen guy jubal nit ñi amul hmm? asaalis ñetteel ba am na laam ne laam fii liy di la ci liy di la lay sa nekkul laamu taalil laamam sabab am na ñu ne nekkut ne pour réeral laam googu ñëwut pour wane ne bu ko defee ngir réeral ba li fi nekk yéen moom laa mu sayrurati laam ak mujj la wala aqibatu ak mujj maanaam maanaam ana aqibatu kasi bi mujj fenam wa masiru ak mm, fa muy teer teer yi ilal idlaali mooy réeral bii ci moom rek maanaam man kasaba alayya mutaamidan ku ma naral fekk moo ko tey luy di la te dana réeral bii ci loolu laam googu nekkul pour ne ngir réeral moo ko tax a fen waaye de laam ak sayrura maanaam fen gi ci réeral rek lay mujj. Mm-hmm. ka xawli taala faltaqatoo mu fork ala firawna liyakuna ngir mu mujju nekk la moom ñooy leen abdu wan di noonu wax danañ ak njàqare maanaam laam googu nekkul lañ koo for ngir njàq ngir noonoo ngir mu noonoo leen mm-hmm. kenn for nit ngir mu noonoo la ak andi waaye dañ koo fon for mais fekk for googu ci noonoo la leen mujjee noonoo ak moom ak ci andi leen problème mm-hmm. mooy yeneen ونزائر لمن من في القرآن في القرآن وكلام العربي وهي عربي أكثر موك من أن تحصل عندك تك وعلى هذا تري يكون دينك معنى ومعنى فقد يسير يسير دنمجو أمر كذبي يمبر نرم إدلالا درير وعلى جملة مذهبهم تي بوت بورم تي سينم غير سينب سينب سينب غير أراكم موغنا جفه ولا بوغ موغنا لطو دينك min an yoxtanaa ci ñuy sonnee bi iraad yi ci rotal ko wa abadu moo gën a sori min an yoxtamma ñu yittoo bi ibaad yi ci soril ko wa afsadu moo gën a yàq min an yoxtaaje ci ñu aajoo ilaa ifsaad yi ci yàqu nee na daal boo xoolee seen wax daal danga xam ne du wax joo xam ne nii jër jër naa andi waaye du wax joo xam ne jër naa toog di ko jéem a naan wax ju sori la wala di ko jéem a yàq ndax wax ji tegu fenn la wax ju tegu fenn moom kum réeral yaa bëgg réer rek waaye xam nga ne jubul mhm. wallaahu alam yàlla rek moo ji xam araabiatu ñeenteel ba mhm. yaxrumu dana xaraam riwaayatu xadisu mawdu nettali xadisu mawdu loolu danañ ko déggee ci xadis bi mhm. alaa man arafa ci koo xam ne xam na kaw noo nekk mawdu an di mawdu aw xalaba wala mu njort alaa zanni ci njortoom aw xalaba wala mu not alaa zanni ci njortoom wootamoo fent xadis bi bu dee wóor na wala boog loolu moo gën a not sa xel xaraam na nga di ko nettali fa man rawaa ku nettali xadiisan xadiis alima xam na aw zanna wala mu njort woo daxu dañ koo fent wala mu bayin te leerul xaala riwaayat yi jamono bu mu koy sot euh, nettali leeralut woo taxawu ne dañ koo fent foo moom daa xel wax dugg la fi haadal waxi di ci biir a tëkku xadis moom doom bu ñu fent fenal ko yonent bi boo ko nettalee te leeraloo nit ñi lii dañ ko fenal yonent bi yaa ngi dugg ci tëkku gi mm-hmm. mundarijun aji taxaju la fi jumlatil kaasibina ci mbooloom ñay fenaan ala rasulillahi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa ngi bokk ci mbooloo muy fenaan yonent bi waaye dul dana teg taxaale ci moom ay lan ba tey alxadisu saabiq xadis bu jiitu ne man xaddasa ko waxtaanaa ne ci man bi xadisin ci waxtaan boo xam ne yàlla dana gis andoo ne moom kasibu nar la foofu moom ahadul kaasibina kenn la ci narkat yi xadis bu jiitu yonent def ne ku ma nettalil xadis te xam nga ne lii fen la yow kenn nga ci fenkat yi kon dafa wane ku solo hadith bo xamni ne Maodo la te xam nga ko te leeraloo ko yow kan nga. ولهذا لما تقالوا أن أرونا معه برم قم قمي ينبغي دنيا لما أراد كبق رواية حديث نت الحديث أو ذكره ولم تدكو أن ينظر مقال فإن كان هناك صحيح عند حديث بوير أو حسن ولا حديث بولفت قال منه قال وانا رسول الله ينتهي بسلاسا كذلك أو فعلوا ولم ينتهي بدفنكم أو نحو ذلك ولمل نونو أو نحو ذلك ولمل نونو من سيغ الجزم تي تجين دوغو دوغو نيو نتوكو وإن كان بو نيكي ضعيفا ديلو لوت فلا يقول بوم وقال وحنا أو فعل ولا دفنا أو أمر ولا دجلنا أو نحا ولا ترنا وشبي ذلك أجين من سيغ الجزم تي تجين دوغو bu fekkee ne xalis bu lott la bul wax ne def na bul ne def bul ne wax na bul ba li fi nekk yaqul lay wax ruwee nettal nañaanu ci moom kazaali aw jaa wala dikk naanu jugee ci yonent bi kazaali aw yurwaa wala danañ nettali aw yuskar wala danañ tudd aw yuxkaa wala ci façon boo xam day day tekki ne lii lu lotoro aw yuqaal wala waxeef nañ de aw balaxanaa wala jot nañ ne yonentu wax na nga hommage boo waa gi nurug yooyu waaye bul ci doog mm-hmm. wala yàlla subhaanahu tudd na ma sellam moo gën a xam xaala mm-hmm. wanaa roona maa borom xam-xam yi wayen baxi dana لقاري الحديث من كل جان حديث أن يعرف مقام من النحو كي نحو واللغة اللغة وأسماء الرجال أكتر غوري غوري ما لا يقم يسلم دون متبيت مم من قولي كي وهم ما لا يقم لم يقل يرنتو وغركو ليلام صلى الله برم خم خم نينا يومي جان حديث برم خم نحو parce que boo xamul naxu da dangay firee hadis bi nu mu doonut jox boo xam ni namuñ ko ca su ko defee waxal nga yonent lu mu waxul war ngaa xam luxa boo xamul luxa mën ngaa firee baat bi nu mu firiwul war ngaa xam turu góor ñi maanaam ñi nga xam ne ñooy nettali hadis yi. da mm-hmm. boo leen man ngaa bañ a xam xadis bi ci kan lañ ko jëlee ndax lu ñu war a nangu loolu nekkul lu ñu war a nangu moo tax lii laay wax ne xam-xam xadis xam nga am na façon xam-xam yoo xam ne damay wax ne bu doon kër nga ne dafay taaral kër ga waaye xam-xam dëgg boo bëggee jàngal naxu loo ko sarf nga dëgër ci fiq musala xadis usul fiq balaa xaarul mantiq yooyu dafay taaral kër rek mooy tolloo pentu rek meegul ak yooyu waaye nga ne mën nga xadis te mënoo naxu mënoo luxa mënoo sarf déggoo usul waxoo dëgg mënoo xadis ndax yooyu dafa lëkkaloo xadis moo nga ne mën naa togg waaye saako ceeb rek laa am awma diw awma gaas awma matt moom wala jum ma mën ngaa togg ceeb bu neex waxoo dëgg noonu la mel xam-xam yi dañuy duggante de moo tax jàng dafa war nit balaa wax wala muy taxasus si ab matière day fekk mu boole matière yu bari moo tax sax nit gis nga dangay ngay jàng di boole matière yu bëri ba am bac dugg université door a tànn benn pour continuer fekk am nga asaasa asaasiyaat yi soxla fondement yi soxla. xamoo dara te ne yow taxasus nga ci ba am am matière te xamoo yeneen yi dara da ngay toppale rek doo wax lu kenn xam moo tax ci erreur la ngay dëkk yàlla incha allah musal. bu daa sax ne wér na fi riwaayati ci nettali gi maa la nga xam ne yoo xam ne andoona moom xatawu njumte la fa sawaabu lay njub alladi la nga xam ne alay nekk des moom al jamaahiru mbooloo yi mais salafi ci mag ñi wal xalafi ak ñuy ñëw andoona moom yar bii dana ko nettali ala sawaab bi ci njub wala yu xëyroo du ko changé fi kita fi kitaab bi ci téere bi boo demee dégg nga gis ñu indi dara ci téere yow mu wóor na lii njumte la li nga war a def tam borom boroom xam-xam yi nekk ci mooy corriger ko ci suuf waaye bul changer lam bind ci téere ba ndax amaana yow nga jàpp na njumte la fekk du njumte mm-hmm. keneen ñëw la nga ci déggutoon mu dégg moo tax dogu na li njumte la sax wóorul ci borom xam-xam mm-hmm. laakin waaye nag yuktubu danañ bind fil xaasiyati ca ba انوني مو وقع تابنا في روايه تشنتري كزالي وانا صواب لي جب خلافه مولو تيغلول وهو لي جب كذا مولي بندل سيسوف سوف ني لي لنج بند سي تيري لي موي لي وير ويقول نو عند روايتي تي يمر بمنتري نكني وقع تابع في هذا الحديث بالحديث او في روايتنا ورا تي بنكو نتري وصواب لي جب كذا كم ني بري حديث لا ني لنج ني لنج جوخي ولا ني لنج ويتي بي waaye nag du noonu lii moo jub da nga bàyyi fa xadis ba mën nañ la ko nettale foofu loolu ajmaaw moo gën a mën a dajale lil maslahati ñeel masa maslaha moo gën a wóor daal faqad yaataqidu amaana mu jàpp ko xataan njumte wa yakunu mu nekk loo ñeel ko wajun beneen anam boo xam ne yaarifoo xam ne ko xeyroo kudul moom mën naa am nga jàpp ne li njumte la fekk du njumte yow yaa ko jàppee noonu mais am na keneen koo xam ne gis na ci luy wane lu wér la yaa ngi seetlu borom xam-xam yi ni ñu amoon xorma de dañ naan lii moo wér ci ñun mais duñ doogu ne lii mooy la leen li njumte la loolu kuréel rek moo koy def wala futaa buñ ubbi woon baabu taxyiir yi buntu yi buntu soppi téere da tajaasara kon dana ñu ko yellowul bu ñu ubbi woon buntu loo gis ci téere bi rek ne baaxut hmm. da nga gis koo xam ne yellowut <laughs> di wax ne lii baaxut ubbi téere naan lii baaxul loolu da nga koy gis suñu jamono ji. Mm-hmm. xam nga ba ñu buntu wéral xadis loolu tal xadis koo xam ni dara dara dara dara maanaam jàngam sax naxoom sax bënn gudd muy lottaloo xadis ak mm-hmm. lépp risque la ci diine ji da koy yàq. قالوا انا لما بروم كوم كوم وين بخي دنا يلو لي راوي نيل كوي نتي حديث وقاري حديث اكوي جان حديث جستبا بولنتي عليه موم لفظه ابار فقرا مو جان شك سيك او يق ان يقول مواقبه تي او كما قال ولا لم وخ بو جان حديث بي بي ليرو لا ني لاكو وخي سو وخي بات بو بي تكسي او كما قال ولا لم وخ ني رغلا يال غير باña وخ لو ني لا وخو والله وقد قدمنا جيتا في الفصول السابقة في فصل جيتو الخلاف ووتي في جواز رواية جيت دغن نتلي بالمعنى كمانا لمن ينكره من كامل المعرفة أجي قم أجي مات قم قم لا وأنا أم قم قم وليس قم قم ويرنا من غير نتلي حديث بكي معنا قالوا أنا ما أبرم قم قم ويستحب سوبرين لمن روى أن يكون نتلي بالمعنى كمانا أن يقول مو بعض وغنى أو كما قال ولم وحزا ولم يلني وكما فعلت الصحابة ولا نكو صحابة دفي فمن بعدهم توك نيوك تيغنا بو نتري حديث بي معنى معنى حديث برنغ نتري وقال أو كما قال ولا بوكم لي يرن توخ ولا نتري أو نحو هذا ولا مل ني لكو وخي ديغ كما فعلت الصحابة كم نكو صحابة دون دفي فمن بعدهم توك نيوك تيغنا نيوم نيرن نان دف بس نتري حديث بي معنى دفي تيك ولا أعلم الله يكخم وأما توقف زبير وأنس ويتحوك زبير وأنس أك أنس وغيرهما كل يوم من الصحابة الصحابة رضي الله عنهم يا لقرم في رواية جنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكسار أكبر من هاتمهم ولكونهم جنك جنك خاف ورقل غلط جمت ونسيانك فاتح moo tax xadis loo ko mën a daw daw ko man damaa jàpp ne loolu waral suñu mag ñi sax waxuñ ci dangay am fit léegi fenal violente dugg jëndal sa bopp tikatu safara te kenn jaay la ko hadis def ci attention baax na Zubair ak Anas ak ñu dul ñoom ci saxaaba yi dégg euh, lu tax taaw ñettali lu bëri ci yonent bi parce que dañuy ragal juum ak fàtte mm-hmm. war naa si aji fàtte wa inkaari nem nekk la ismaal yi dit bàkkaar di ko war faqat yun sabu mën naa am ñu askane ko ilaa tafritin si sàggan li tasaahul yi ngir sàggan guñ sàggan aw na si aji fàtte baadul ahkaami chariyat yi lenn ci atte charia yi ka xaraamaatin mutlafaati ni ki la nga sànq boo fàttee ba yàqal nit moom du tee nga fay kon ku fàtte am na luñ ko topp moo tax ñoom bëgguñoo wax sax ci hadis ndax mën nañ cee sànq sax àll lu jàmbur far wanti xaadu taxaraat ak yàq laab xam nga boo fàttee ba toj le teewul sa njaab gi yàqu na kon fàtte léegi-léegi lislaam topp ci nit moo tax ñoom ñiy bañ a fàtte ci àddi ci yonent bi ba waxal ko lu mu waxut ëllëg lislaam toppee leen ci dara wa xëy zaag ak duru loolu mel ahkaamil maarufaat ci àtte yi ñu xam am na yoo xam ne daal fàtte moom du tax mu mu wàcc la wallaahu alam yàlla rek ma aji xam moo tax li ma leen laa bi mooy xadis yonent yàlla Muhammad sa alayhi wa sallam xam leen mais bu leen bëri lu ngeen ci xuus ndax géej gu bëri risque la dee leen dellu ci borom xam-xam yi ñu ne ñu ne wér na nga ne wér na ñu ne wérut nga ne borom xam-xam yi nee nañ wérut buñ ci wutee nga ne wutee nañ ci xool la la ca doy doy nga jàpp ci mais bul sol yow mbubu naan lii moo wér man maa ko gisee nii maa ko gisee nii fii laa jaar fii laa jaar wér na wala fii laa jaar fii laa jaar wérul déedéet del dellu ci borom xam-xam yi ko yelloo ci wàllu xadis ëllëg yow ma xiyaamati da nga mucc bu yàlla waxee nga ne man dama dellu ci borom xam-xam yi ñu wax nangam boo demee nag ba bokk ci ñoom xegg ci darajaay ijtihaad ba xamoon ko sa bopp bëri na ñu yeggoon ci darajaay ijtihaad sax te nekkuñ mujtahidoon dañuy topp ngir ba léegi te yem nañ ni borom ngir ma ndax ragal. waxal yàlla dañ xamut yow nag boo demee ba yegg ci daraja ijtihaad nag boo amul sàmm googu mën ngaa dugg gaa ci wàllu hadis di tasxiix ak tadxiif ndax ba nga bañ koo teg ci sa xalaata bopp teg ko ci xam-xam bi nga xam ni moom la bu borom xam-xam yi tëra soo demee noonu mën ngaa mucc waaw waaye nag bu dul loolu moytul moytul di dugg di bëri lu dugg ci hadis yu nu ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku nasiixa la إن أريد الإسلام استطعت ما توفيق إلا بالله عليه التوكل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته